jërëjëf aousubillahi min asheytan irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa habibina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum ñi ñi fi fekk ñëpp di nuyu waa dëkk bi yëpp di ci nuyoo bi suñ maam